باي دافو يلا يالا نيكون لا تلبيه من واصل عرفه من كولخ منتهى الدنيا الى عرفه الله اكبر شيخ ادي ياند فوخ ني في اقصى الغرب فادنا يم ما شاء الله بروم فايده تجاني فلاي دك باي نيس مي ورا اجي 36 37 تي اجي غوغو عرفه مو ني يالا ماغي واخ لا بايك نيكو نيو باي واخ واخ waaye talbiya la boo xam ne min waasilin arafa ku àgg ci yàlla ba pare te xam ko mooy wax la bayka maa ngi wax la bayka gannaaw bu ma àggee ci yàlla ba xam ko ku billaahi bi mooy wax la bayka maa ngi koy wax fan arafa laa koy waxee arafa gi ma koy waxee nag ki ko koy wax fu mu baxee ko ñu ne ko fan la min kawlaxin muntaha dunya léegi seetal kawlax bàyyi daf ko tuddee muntaha dunya Cheikh Hassan ñu may déglu ci àddina bi yëpp foog ñu may ma ma waxtaan ci lu tax bàyyi wax ne kawlax mooy muntaha dunya bismillah muntaha dunya mooy fi àddina jeexee fee fi mu monde bi feeñee àddina boo ko tokkee fi mu feeñee fi mu jeexee alaaji Baye Cheikh suñ toppee géographie carte géographie monde bi Sénégal gii ñu toog dara féetiwul ko gannaaw la muy giij dëgg la Sénégal mm-hmm. fi la monde feeñee fi monde jeexee géeja ko féete gannaaw mm-hmm. te Kaolack ci Sénégal la bokk mm-hmm. muy présenté Kaolack Sénégal mm-hmm. ne man taxaw naa Arafa taxawaay ab jaam ci yàlla te xam yàlla waaye bi fi taxawee taxawaay ab jaam bu àgg ci yàlla yàlla maa fi taxaw bayee koo dëkk bu tudd Kaolack nga ne ko ma Kaolack fu mu ne mu ne Kaolack mooy fi àddina yem ci ajam gi la ko waxee ci aj bu njëkk gi la ko waxee Arafa ci ah, Arafa léegi nag lu tax mu wax ko ci aj bu njëkk ci Arafa man gannaaw gi nag bi ma doxee ba moom Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala bam nàndal ma ci kaas yi tax moom mu tudd saaqi ku usil Moustapha mhm. xam nga bàyyi bokk na ci turam yi mhm. mooy kitee ngob laani kaasi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaasi maarif yeeg adwaax yeeg xam-xam mhm. moo ko téye ko nàndale bi ma demee man Ibrahima bi tey ba xam ne mos naa ci kasse xam naa ne ma sa way dama mos mm-hmm. la déggaatee muntaha dunya dunia beneen déggin mm-hmm. alaaji mm-hmm. ku jëm ci yalla yoonu adina lañ lay tracé bu jexé rek nga ngi ci yalla deug la nga wax jolo deggu deug na baye mu ne kawlax nak moy muntaha dunya ku bëgg adina jeex nga ngi ci yalla kawlax ngay dem li tax ñu wax pays bi kawlax motax dana yegg li may ma rek ma ma rafet foofu lu ma ko wax alaaj ma kumba dafa mel ni dégg góoma yow grand dama ne dama ne dama ne yoonu yàlla mhm. soo ñu sooy wut yoonu yàlla mhm. Mhm. dañ lay tëralal na rek na la àddinaa ngi nii topp ko eh. fu mu jeexee fu mu nga àgg ci yàlla xam nga sax li ma wax nii dafay am nu muy ñu muy diis ci ñoom parce ki dee barki démb ak barkaatu démb yal na ko yàlla yërëm ci corona du lu ñuy wax génn na àddina mm-hmm. bu mu génnee àddina ku mu dajee yàlla diw de mm-hmm. na ko mm-hmm. yàlla jël na ko fu mu ko jëlee àddina la ko jëlee àddina jeex ci moom di seetlu leen ku àddina jeex ci yow nga tase yàlla bàyyi ne kawlax mooy muntaa duniyaa ku bëgg sa àddina jeex kawlax ngay dem ku bëgg nga jeexal ñu jeexalal la sa àddina kawlax nga koy fekk moo tax mu ne taxaw naa arafa taxawaayab ku xam fu ma bàyyee ko kawlax laa bàyyee ko kawlax mooy muntaa duniyaa parce que bàyyi nges mooy ki omat jaam bi mm-hmm. dimbale ko mm-hmm. daggaay hijaabam mm-hmm. dindi ay muuraayam paa yu ndaw yi ne ci kanamam gi ak ci xolom bi ak ci jikkoom gi mu daggate ko influencé ko tegal ko ko fële paasel ko ko ba mu jekk mu jàkkale xolom bi ak boromam jàkkale jëmmam ji ak boromam jàkkale kanamam ak boromam mu nekk jaam boo xam ne dafay jaamu yàlla lillaahil xaalisan lillah nga xam ne dafay jaamu ci ci jublu ko ak xam ko moo tax ba mu demee arafa mu ne man de maa ngi nii bàyyee koo dëkk bu tudd Kaolack waaye Kaolack de mooy fa monde ba xem macha allah fa monde ba xem mooy ku fa àgg rek tàggoog monde bi te ku mm-hmm. tàggoog monde bi sa borom ci nga jëm mm-hmm. wax naa la ki dee ci bërki dee bi ci corona bi day janaa boromam la ñuy wax mm-hmm. loolu kat sama déggin la rek bu ma lay wax